Mami Ndiaye ci noonu dañuy dugg ci li nga xam mom moy mooy waxtaan bi euh, monsieur Camara bañ koy dooree ak li nga xam mom moy mooy gisee bi am diganté ñu ëmb secteur privé bi ak ki nga xam moy suñu njiitu rew Basirou Jomay Fay ñu jël fa ay dogal yu ci melni dal di jàppale euh, gouvernement bi ci lépp plus emploi des jeunes waye itam réduction du coût de la vie est-ce que japp nga né secteur privé bobu mëna na indi carrément développement. Euh, wa effectivement on a constaté gis nañ que. Bassirou Diomaye Diakhar Faye dalalna Dalalna, euh, donc euh, le secteur privé ak aussi les centrales syndicales. Mhm. les centrales syndicales moy ñom modi Guiro. Mhm. Mademba Sock. Cheikh Diop. lepp dem la ko def et mhm. consort donc ñom tamit ñooñu maa ngi leen di nuyuwaale. parce que man syndicaliste la ba sama syndicat mu ngi bok ci synthèse. Euh, Modou Guiro moo ko donc maa ngi koy nuyu di walé aussi délégation bi yëpp donc ñom samay mag lañ gis na sax ñu leen di sanni xeer tuuti di wax né ay mag lañ dañu wara dem tok mais tamit di wax né euh, surtout au niveau des syndicats des centrales dañu soxla expérience wa des des hommes d'expérience c'est vrai bés dina ñëw ñom ñu ñom ñu pousse tuuti bàyyi la jeune génération te buñ faté né ku mel na dit bi muy jiite synthèse il n'avait pas 45 ans bi muy commencé jiite synthèse amaguloon 45 ans donc kon bi mu koy jiite jeune la woon waaw te ba tey soxla neen expérience euh, c'est valable aussi pour Mme Sock Mademba Sock aussi bi muy jiite centrale bi donc yàgg a boobu ci nguuru PS la donc boobu Abdoulaye sax accédé au pouvoir te bo Abdoulaye accédé au pouvoir ça fait déjà plus de 24 ans donc ba légui soxla leen mais la relève aussi est là et pour encadrer aussi la relève mhm. alors donc euh, dajé ñaari dajé ben dajé bobu amna wala ñaari dajé amna en tout cas ñom le recevoir ondo ci ben ben fan. Mhm, ñaari daje la. ñaari daje la effectivement donc lu am solo la parce que euh, man damay né rek mom dégg nañu en tout cas man samay discours yépp fan yi ci lool lay wax dundu gi. Mhm. ñu wàññi wañ ko ba paré tamit. employabilité bi te dund bi aussi buñ ko wàññee it euh, tey maanaam comme ceeb dëwlin suukar ak yu yu mu àndal yëpp mais tamit dama ne ndox ak courant ak courant mhm. te ndox ak courant mooy mu am ci gox-goxaat yëpp mhm. ba pare facture do et facture d'électricité aussi ñu wàññeeku parce que loolu tamit bokkoon na ci ñoom projet bi ñu jaay sénégalais te loolu tamit sénégalais yi aussi ñu ngi koy xaar mhm. Euh, euh, xëy surtout xale comme ni parce que au niveau de la population du Sénégal ndaw mhm. presque 75% de la jeunesse n'ont pas 35 ans mhm. des jeunes n'ont pas 35 ans de la population alors kon kon lu ëpp Sénégal ñu amul liggéey ndaw yi la te ndaw yi bu ñu amee rek waajur dañuy fiix wala dañuy xaw fiix mhm. comprendre donc kon euh, munoo def ay réforme wala boog munoo indi ay ay ay kii ay ay ay décision ci ci euh, euh, fànn yooyu ba pare te doo waxtaan ak les acteurs. les mhm. te ñooñu ñoom ñooy acteurs yi. Mhm. bu ko defee ñoom ñu wax la seen xalaat xool pour yooyu nga xool ak sa gouvernement yan pexe ngeen mën a def ñun kay li ñuy wax rek mooy ñu gën ko baral. Mhm. parce que boobaak léegi mu ngi bëgg a yàgg. te ñoom aussi li ñu fi digg aussi dafa bari. te loolu moo jiitu loolu mooy priorité reddition des comptes ci la bokk mhm. mais priorité yii la yaa ngi dégg si wàllu infrastructure aussi am na solo le président Macky Sall def na si jéego yu yu bari mais ñoom tamit nañ ñëw rek teg seen tànk fi le président Macky Sall tegoon donc euh, euh, rencontre yooyu ñu ngi koy rafetlu ñoom nag musuñu rafetlu ñun luñ def ñoom ñoom bañ fi nekkee mhm. nekk ci opposition bi président Macky Sall lu baax rek la fi def mais ñoom musuñ ko rafetlu mais ñun suñu gisee ñoom ñu poser acte yu normal yoo xam ne une république dafa war a poser acte yu mel ñun dañ koy rafetlu encouragé ko ba pare nag joxe ci suñu suñu xalaat waaye mm-hmm. donc léegi loolu ñu ngi koy encouragé mais na gaaw mm-hmm. alors gis nañu itam ci euh, rencontre bi comme ni nga ko avec les syndicalistes soulever nañu fa lu mel euh, conditions euh, de travail yi nga xamné mom lañu wara améliorer par rapport ak administration beek yi ni mel mm-hmm. Tay ji est-ce que conditions de travail yooyu nonu yow gis nga ni amna vraiment lu ñu améliorer carrément mais bien entendu effectivement ñun ci sunu ay essence surtout au niveau des centrales oui, d'un coup, d'un d'un d'un soulever, surtout au niveau des usines. Mm-hmm. Oui, même au niveau de l'enseignement. Il y a des conditions de travail, vous mettez. Mm-hmm. Par exemple, un enseignant, vous Djangal, en France, doit passer 25 élèves. 20 mm-hmm. à 25. Mais fils Sénégal, mais d'un dit Djakarlok, il y a 40, 50, 90 élèves. Je te dis, hein, 90 élèves. Mais nous,

Euh, Mathématiques ak benen bo yo ya yay ban discipline lay doon mm-hmm. yo xamné yépp da nga mm-hmm. donc kooku nang nga koy nang ngay corriger mm-hmm. ba pare ñaata xalé ba aussi bo sa préparation té leçon yépp da koy préparer au moins y a cinq à 7 ba 8 leçons par jour leçon bu né da nga préparation préparation la préparation rek du tout, la préparation mentale ndax commencé de faire say fiches di bind D'abord, nga war la préparation mentale. ba pare dem wuti ay jumtukaay. pour préparer la leçon. donc dafa am lu mu laaj. donc euh, liggéeykat bi condition de travail am dafa am solo. mais comme ni ma ko waxee léegi euh, le secteur privé dafa am solo euh, dëkk bu bëgg a développer maanaam comme yi ñu fi wax léegi yëpp wàllu xëy bi wàllu gi il faut nga jàppale ce secteur privé dooleel la. Mm. côté côté enseignement.